xana fasiyene yéenee teertu jappale ko ci limu deug ma di ñaan yalla may ko ci ndam. da ngeen am fu nga nekkon fi ñu na am fu ñu nekkoon. ndax Touba ko fi nekk ni nekkuma ci fenn buñ la ko waxe waroo ko gëm daa am fu ñu nekkoon fa ñu nekkoon nag dañ fa jóge Cheikh Abdou Bara doli mo ñewon fi fi ma ko làng nii fi la ko won fi la ma joxon rendez-vous kéré ba mu ñew délégation bu mag laa àndal ni ma boo ma ba ma am li ma bëgg loo bëgg dinaa la ko defal dig na may machine dig na ma lépp njëfandikuwaay yu ñuy liggéey rek dig na ma ko bis ba ma déggee ne am na ndam ba muy feetu yëguma ko man Awa Gueye yëguma ba muy feetu barki démb bi woowal na ma téléphone ne ma numéro bi damaa réeran ma ne ko amatuma sa jot fonk cosaanam te gor su baax day fonk cosaanam day fonk juddoom naw deretam as gor a ngi nii nag danoo réeran nag te gindi nanu yal na nu yàlla ak Seex Muntaxa jàppale ba nga am ndam barke Sëriñ Tuuba ah, dañu ñëw fii ci daaru Tanzil dama xaw a sax soñ nag tey moom xam naa ni kàddu gi leen ma ko jéggal dañu ñëw fii ci daaru Tanzil seet si soxna Awa Guèye mu nekk soxna soo xam ne sii yàgg nañ di ko dégg ci terrain politique bi mais yàlla dogal na ci semaine bi la am ak jaxasoo ak moom mu nekkoon ko gis-gis doon liggéey ak Cheikh Abdou Bara Dolly xëy na la nga xam ni moo leen lié woon ñoom moo ko xam la leen tàggale it moom moo ko xam ñun daal suñu objectif mooy massifier lu bëree bëree bëri pour son excellence président Macky Sall jéem ko jàppale ci échéance électorale yi ñu jëm ba mu am ndam moo tax fépp foo xam ne xam nañ fa ab responsable boo xam ne si nii am na njariñ responsable boo xam ne am na mbooloo responsable boo xam ne si nii dina fonk kàddoom responsable boo xam ne si nii dina sàmm ngorom ak diineem danañ ko jëli ak parti bu mu mën a nekk loolu mooy suñu objectif ndax dañu jëm ay élection yoo xam ne si nii dara du ca doy kon lépp loo mën a am rek jël ko indi mooy suñu teewaay tey fii ñu dëkk si fekk fi soxna Awa Guèye wax dëgg yàlla it nag ñu ñëw fekk ko fi fekkin woo xam ne si nii rafet na rafet nañu ci njortu euh, vraiment ci ànd ak ànd ak moom. ndax li mu ñu wax ak euh, lim ñu wan vraiment méngoo na kon du ñu def lu dul tàllal ko suñu loxo jéem a ànd ak moom jéem a élire son excellence président en 2019 le 24 février loolu daal mooy suñu tànk fi tey. waaw effectivement xam nga Daaru Tansil dafa bokk ci village yi nga xam ne si nii dañu bëri électorat ndax bu ma nee Daaru Tansil mooy village bu tudd Touba Ndiarème bari na ay quartiers yu ci nekk yaakaar naa mën na juróom-ñaar wala juróom-ñetti quartier recensé naa ko man am personne hmm. bi commission bi doon distribuer parcelles yi ci laa bokkoon fii bokk naa ci ñi ko doon recensé dem parce que parcelles yi mi ngi toll ci 8 kon loolu lu am solo la électorat bu bëri moo fi nekk li ñuy def kay mooy xool soxna Awa ak ñi mel ni moom ñu dugg ci quartier yi différents yi jéem a génn électorat bi fi nekk ba ñu mën a wateel son excellence président ndax loolu mooy liggéey bi mais Darou bu ñu am yaakaar la ndax euh, yàgg nañ fi di yëngutu daal ci liggéey ci recensé ci joxe parcelle yëpp yàgg nañ di dugg kon xam nañ am na lu fi nekk waaw. waaw ci lañ nekk xam nga pour le moment dese nañu cinq mois fii ak élection yi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi góorgóorlu suñu kem kattan mais jàpp nañ ni bu ñu continuer maanaam ni ñuy def nii. di massifier yaakaar naa ni fii ak élection yi danañu am lu tax ñu mën ko gagné ndax président am na ay engagement yu bëree bëree bëri yu mu jël biir Touba def fi ay réalisation yoo xam si ni mi ngi tege ba ñu ngi jub màggal ku ne gis na mm, deux fois deux voies yi nga def na ko bi ak Mbacké Touba bi ni mu ko élargir yokk ko problème ndox bi ñu doon am également ku ne gis na ni xaw na sax handicapé DER bi nga xam ne si ni moom lañ leen financé ndax jël nañ daanaka plus de dix milliards injecté ko ci ndox bi ndax. ndox mi commencé am problème ñu waroon def ay financement mais dañ ko jël dugal ko fa kon kooku ba am priorité dëkk bi ñor na ko xalaat nañ ni maanaam bu ñu góorgóorloo jàppale politiciens yi rek li ñu bëgg dinañ ko am loolu lañ jàpp waaw parce que réalisation yi vraiment ils sont assez nombreuses. waaw muy benn œuvre boo xam ne si ni du bu ndaw xam nga aussi un projet de cent quatre cent seize milliards nga jagleel ko la communauté mouridisme aussi du lu ndaw benn Touba. excuse-moi Touba yalla dafa def daraan xat lol bu magal gi di jupsi si jurbel Touba diggante bambay bu Touba sax lañu wax auto ci kaw auto la doon doon bu suñu borom dogalé nak président jël initiative créer une autoroute bo xamné ne si nii maanaam à hauteur de 180 188 km la lolou dina dimbali dëkk bi dina jàppale pèlerin yi nga xamné ne si ni ñom ñoy ñëw ci dëkk bi ba nga xamné si ni ku bëgg ñëw di nga tok ba heure bi nga ñëw nga départ mëna a au lieu nga def une journée ci yoon bi lolou luñuy rafetlu la ci di ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu àgg ci ak jàmm ubbikoo ak jàmm ci oto yi di ci daw ak jàmm